lii jomb na mën na am lépp lii kon nag mën naa wax ni moom Coupe d'Afrique la jël kon ñoom Sadio Mané luñ jëlee maaleykum salaam. aw lu ñu de. ana Aliou Aliou Cheikh Adama. waaw xanaa gisoo sa ginnaaw ya tamit. yow de ma yow lakkatu tey laa de jël mën naa ci feer bi. yow lu tax ma fóotu la sa <laughs> nu may may rek. loolu baaxee la. déet da ngay def nag boo ñëwee fekk ay nit ñi toog ya ngay dal laajte lu fi xew. yow boo demee defi journal ma ne <laughs> waaw même passé ku gis ni. feer bi ni mais wow. Eh, eh. lépp ko dee bokk. këcal ma ni bu bu ma bàyyi si ma waaw waaw waaw. ñetti junni juróomi téeméer kese ah. tey balaa ngaa jóge fii dina la ko fay te Antoine Diouf sax waaw moom moom di dina wax dama ko wax fii waaw léegi defal nag balaa nga ñëw si Antoine barali Antoine waaw defal nag rek balaa nga ñëw si Antoine yow est xam nga kii lu waral li jotaay bi xam nga ko xam nga li kii lu waral jotaay bi laa wax du anniversaire maa gis ko ñu ngi toog waaw mais laaju fere ñu wax ma ginaar yooyu togg mooy lu tax maamu di dugal mbaamu xuuxu si ko. defal naa waaw defal naa waaw da ngay def nànk rek. naa ko fii. waaw. jullit ak catholique moo nekk fii. loolu dëgg la kër gii jullit ak catholique ñoo fi nekk. ginaar nga def ko mbaamu xuuxu fii. waaw waaw léegi defal naa léegi nag da def nànk moo wax la lu xew si kër gi. gis nga kii nga gis nii. Oh. Afrique ba mu daj. mooy meilleure présentatrice Afrique maanaam. moo ñoom Sadio Mané lu jël coupe d'Afrique moom loolu la jël. coupe d'Afrique la jël kay. am déet. kon moo tax nga toog fii. ñu dajaloo fii ndax ñun suñu xol sedd. moo tax téléphone bi mu ko woo. di ah. ma ko jot ma demee seen kër du du ma gis. loolu moo waral nag nga xam seet mënoo koo gis. yaa jël ko loolu. waaw moom la jël di. Ah, waaw déet mari bu jooyee tamit déet déet bu bu déet déet waaw déet waaw dafa nag yow tamit bu te ma xam moom bu jëli boobu. Ah. man tamit jëli na ko. Eh, eh, eh, yow noo ko jëlee. lan nga ko jëlee. ah si kat maa ko footu maa ko paase. ah wax dëgg wax na dëgg nag. comme moo koy fóotal kii bu jëlee Coupe d'Afrique moom tamit jël na Coupe d'Afrique de. léegi nag xanaa xaalis bi ko yore di nga ko baal. yow de nga seetaan. waaw. Bourdieu si waa xaalis si xaalis. waaw wax waxaaral. Antoine la moo dox seen diggante yéen ñaar waxal yaa la moo dox seen diggante. moom moo ne. ah si ma footu baaxul. déet déet waxul loolu de Antoine dafa taxaw mu ne yow mari da nga ko fóotal ba pare paaseel ko ba nga ko paaselee lii yëpp xoolal xoolal fii dox bi yëpp nee daa am ay bën-bën. léegi mu ne sa sa feer bii moo ko moo ko def ay bën-bën. waaw. loolu amul. lan néega mi des fois mi ji naa ko moo lekk yére bi. moo lekk. moo bi. waa léegi def waa léegi defal naa ko ma xoolal léegi nag dama bëgg nga ànd ak dal xam nga kër gi macha allah yàlla si yàlla gën a def jàmm ñëpp a xarañ. journaliste dañoo xarañ macha allah. animateur. Oh. dañoo xarañ macha allah. yu gën a mag yëpp fii la nekk. gën a mag yëpp fii la nekk ba sa gardien yi dañoo xarañ macha allah. gardien yi toog si buntu ba. déedéet gardien bi day lelew rek. <laughs> yow baat bi ngay yëg léegi lu la gardien yi wax ne bul. eh xoolal bul yàgg waaw waaw waaw waaw léegi waaw tàcc leen ko waaye. waaw léegi jël sa bagage léegi xaar ah, si pour photo. mais saa ok. ah dama dama def photo. kay. maa ngi jëlee coupe d'Afrique bi jël yow jël kay. léegi de de doo de. Oh. kii pour moom la wala photographe bi. Eh, mais saa <laughs> na. jërë ngeen jëf waaw léegi. gis nga bopp tamit dañuy wax si bos. di sa bos ñëwal. ndax fii. journaliste yi yu gën fii lañ nekk. fii allah waaw. xoolee ñu Mamadou. ndeysaan. xoolee ñu Antoine. Antoine. xoolee li. Alassane Sabo Diop. Khalifa Diakhaté moom mi doon doxaane. Khalifa asta yow Khalifa dee dee dee defal naa ko defal Khalifa yow Khalifa kii soxla woo ko Khalifa noo ko doyee. ah waaw waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lii yàlla moo fi gëj waaye yàlla na fi yàlla def lii waaye waaw jërëjëf waaye